Mm-hmm. alors euh, xam nga changement la bu nga xamante ni euh, waxuma sénégalais yëpp ñu ngi ko doon wax mais quasi totalité wu sénégalais yi ak ñu jéggi même sénégalais yi dañu ko doon xaar. parce que euh, dafa bëri lu nga xamante ni dafa xew ci Sénégal et justice bi bokkoon na si ñi nga xamante ni ñoom ñoo gënoon a jël coup ci lépp lu fi amoon coup yooyu nag ñu jëloon dafa euh, daf ko jëloon ci. taxawaay ak jëfinu yenn si suñuy magistrat yu nga xamante ni ci mm-hmm. poste de responsabilité ya ñu nekkoon dañu fa nekkoon le procureur de la république bi nga xamante ni moom moo nekkoon maître des poursuites mm-hmm. dañu ko doon gis muy poursuivre ay nit yu nga xamante ni chef d'accusation yi buñ la ko waxee mm-hmm. da ngay wax ban procureur moo war a mën a am audace bu toll nii ba war a mën a wax ne nit kii nit bu mel nii la ba war a mën a tax mu dem ne da koy topp alors kooku bu fekkee ni régime boobu dafa changé te ñi ëpp ñi nga doon traqué mhm. wala ñi nga xamante ni da nga leen doon wax nañ leen jàpp ñoom ñoo nekk au pouvoir ba bokk na si ki nga xamante ni da ko chargé woon ne vol de portable sax nga ko tëjee woon moom moo nekk premier ministre mhm. <laughs> ki nekk président mi nga xamante ni ba ñuy sàcc wala ba ñuy jël téléphone boobu di bañ ñu filmer ko boobu mu ngi ci kaso bi mhm. moom sax si dossier mu gis na nga toppee ko yow moom tamit vol de portable boobu mais ñooñu bu ñu ñëwee gis justice jël yëpp ci ay coup mm-hmm. ñu ne ah ñun kat fi ñu jaar ba fi ñu yegg si fii dañu gis ne am réew bu ñu bëggee mu dox na mu war a doxee mm-hmm. justice ba nga xamante ni moom la ñu war a am dafa war a nekk justice bu tëddee njaaxanaay mm-hmm. te justice boobu noonu ab tour dong la ay nit ñoo koy incarné donc nit ñi nga xamante ni ñoom ñoo koy incarné solo station ya ñuy nekk mm-hmm. dañu war a nekk ay nit yu nga xamante ni dañuy tëddee njaaxaanaay ñoom ñooy tax ñu respecter justice boobu noonu bu fekkee ne dans certains certains postes da nga gis na ña fa nekk di ko incarné ñooñu matewuñu lañ leen doon def mm-hmm. te comme c'est des magistrats c'est de fonctionnaires mënoo leen xëy dindi leen ci yenn yi nga xamante ni de c'était dans l'exercice de leur fonction sauf mu nekk faute grave grave grave bu nga mhm. xamante ni mais comme secteur bi ñu nekk euh, topp nit ak yu mel noonu mënuñu la wax ne la loolu ay faute grave la mhm. mais comme danga ko doon def dépendant ci exécutif bi te ñëpp xam ne yaa ngi ko doon defal ko nga xamante ni moom moo fi nekkoon mooy régime bi fi nekkoon ba doon dépendre ci le euh, ministre de la justice bi nga xamante ni président moo ko doon jox ordre ngeen di exécuter des choses yu nga xamante ni purement politique mhm. alors ñooñu bu ñu yegsee li ñu war a def mooy mais chamboulement bu tay bi mais mhm. sénégalais yu bëree bëree bëri dañ ko doon xaar mhm. mooy kenn ñu raxas ko ba mu set wàcc te raxas boobu noonu procureur de la république boobu nekkoon fi moom moo la gënoon xam ni du lii mais yemuñu rek ci dindi ko mhm. mais kuli ko <laughs> ne ko acca dawal ay kilomètres nga dem ba Tamba ca tàngoor ñu bàyyi la foofu man sax jàpp naa ne Tamba comme yeneen dëkk yëpp magistrat médecin ku mu manti doon. buñ la fa hmm. yóbboo c'est pour nga mën a liggéey mais dans la justice sénégalaise ñun hmm. ñëpp xam nañ ne. Hmm. Dakar la ci li ëpp di xew. waaye fële nga xam ne ay vol de bétail ak. ay ah. vol de poulet. ak yooyu ngay lijjanti bu ñu la yóbbee foofu daa jéggi sama tool bi dugg na sama <laughs> di yàq nañ sama tool ak yu mel noonu nga fay lijjanti. yooyu c'est cest dire impact. Mm-hmm. orientation réew mi. Mm-hmm. loolu moo ci gën a doyadi. mais fi nga xamante ni ay décision yu am solo ngay lii mooy nit bu nga xamante ni dafay liggéey ci un projet sociétal. Mm-hmm. pour soppi Sénégal. kooku nga jiiñ ko sàcc ab portable pour que ni askanu lëmm bu yaakaar ci waa jooju noonu seen yaakaar. dal di sax poste boobu boo ko occupé ñooñu bu ñu yegsee dañ la war a soppi. te je pense que ni changement bi nga xamante ni moom lañ ko def. maintenant ki nga xamante ni moom lañu fa indi muy Ibrahima Ndoye macha allah parcours am ci li nga xamante ni moom lañ jot a gis gis nañu ne nit bu brillant la bu nga mm. xamante ni bu fidèle ci liggéeyam la ko nga xamante ni dafa jàpp ne justice mooy li nga véritablement nit ki war a jox gëddam bi mu am ba tax na yenn yu incohérent yu injuste yu mu jàppoon ci biir euh, nit ñi doon ko bëgg a dogal ci justice dafa taxawoon lank ne yii kenn du ko def mm-hmm. nekkoon na substitut ministre de la justice bu mm-hmm. bii nii te puis jaar na Kaolack jaar na lii ay réquisitoire am ñëpp nañ nañ c'est limpide musul ci def benn infraction donc kooku dafa am leçon bu nga xamante ni daf ko war a retenir si ñu nga xamante ni ñoom la ñu dindee tey ci yenn poste de responsabilité mhm. responsabilité yi ñu amoon te ñoom ñëpp ñu nekk ay magistrat moom mu nekk magistrat mu war ci jàngee ni li ñuy def ba tax tey jii ñu dindi leen fii askanu lëm sénégalais yëpp mere woon leen ci jëf ju nga xamante ni ñu ngi ko doon jëf hmm. te sénégalais yi ànduñu woon ci jëf jooju ndax dañu jàppoon ne jëf la ju nga xamante ni ab magistrat bu nga xamante ni da nga waat na yow sa liggéey doo ci def lu defuwul da ngay àtt dëgg rek te yàlla rek tax waroo woon def loolu leçon lay doon ci moom hmm. bu ñëwee nag toog responsabilité yi dafa bëri de diis lool mu war a xam ne ah man kat dama am ay responsabilité Sénégal am ci man yaakaar. le mhm. président de la République am ci man yaakaar. le ministre de la justice am ci man yaakaar le premier ministre am ci man yaakaar ñu tànn ma parmi tant d'autres. ne ma responsabilité bi yow lañ ko jox. te responsabilité bi lu tax ñu jox la ko mooy dañu bëgg yoon wu nga xamante ni yoon wuy doxal yoon la. Mhm. du am kumba am ndey du am kumba amul ndey. Mhm. mooy que ni ñun ñëpp ay sénégalais lañ. même carte d'identité bi la am kenn ku si nekk jox ko gëddëm. ni nga ko war traité nga traité ko ko. bul jiñ mukk nit sàcc portable parce que day xool sa hmm. jarbaat bu jigéen bi nekk si koñ bi te buggoo mu di ko xool nga ne na nga ko yóbbu ndungu siin <laughs> da nga te non nga tegal lépp ci yoon ba nga hmm. xamante ni mais nit ki buñ ko convoqué wala ñu topp ko hmm. bu demee toog conscience tranquille dina xam ne li ñu koy toppee nii kat moom moo ko def ah. bu boobaa kenn du la jam te boo attee fii nga atte fële atte de da <laughs> <laughs> koy atte fële Ah. dara rëccu ko de. Hmm. caméra bi mosul xef benn yoon mosul fay. Hmm. te carte mémoire bi mosul fees. Hmm. lépp mu ngi ko enregistré teg donc ñu war a bàyyi xel bu baax ci loolu ma jàpp ne nag changement bi am ni wala chamboulement bi am mais sénégalais yu bëri dañu kontaan ndax tey ngay xool ci kanamu sénégalais yi. mu mel ni tey lañuy door a am liberté. mel ni ku mel ne mel ni. xol yi féex Alassane Alassane Couta de nee <laughs> xolam daa sedd guy. Mm. da nga koy xool. mu mel ni cest dañ la yenoon yen bu diis. may changement yee gome nommé kii dindi fii yëpp bu ko nit ñi doon def gars yi wax lu ñu doon xaar ci justice bi lu ñu xaar ci mais bu fekkee ni da nga bëgg a def lu nga xamante ni boo ko defee day impact mm-hmm. donc tànnin gi it lu am solo la mm-hmm. maanaam lu ñuy segg lay doon comme nag dañ ko doon segg yàlla def na ne tey segg nañu ba tabb mm-hmm. ba changer lépp ci biir waxtaan bi dañ ci continuer fan yi di ñëw <laughs> ci lan la ñu jëm ci lan waa seen dossier la ñuy dem mm-hmm. te kooku nag Ibrahima ndoy mii def ci am liggéey bu nga xamante ni daf koy mu xam ni moom moo war a bind propre histoire am mm-hmm. ci Sénégal parce que jo nekk na ci poste de responsabilité bu nga xamante ni post boobu mm-hmm. moo koy permettre mu bind histoire am positivement ou négativement bu ñu tuddee Maham Diallo mais sa xol yenn saa yi. day jeex waaw <laughs> ay gars yu bari dem nañu kaso. bu Mamadou sekk matoon la bu mat. waaw konoon du ñu dem euh, kaso. Mm-hmm. Karim. Euh, Karim tamit Abdou nag bu matoon la mu waroon def doxalee na mu mm-hmm. waroon def ñu bëri tey tëdd nañ kaso waruñu woon xam lan mooy kaso. parce que defuñu lu war a tax ñu yóbbu leen kaso. mais loolu yëpp nag soo ko boolee ñoom ñëpp ñu boole leen. ne leen bokk leen benn bus ngeen dem fële Tamba. parce que foofu moom di ngeen fa àttee sàccum xar ak nag ak euh, kii fas wu dugg sama tool ak fas wi dama ko saanoon fii mu dagg dugg sama tool lekk na sama ginnaaw gen tool geeg yooyu bu boobaa yow say décision yi nu mu manti bon lu mu yées yées amul benn impact ci Sénégal mhm. mais ñi nga xamante nii nag ñoom ñooy nekk ci instance de décision yi gën a ëpp solo ci mhm. Sénégal mais ñooñu ñu tànn leen ca nañ leen war a tànnee mhm. ñu teg leen ci fi nga xamante ni foofu lañ la doon teg ñu xam ne aussi dañoo am ay responsabilités yu mag. yu nga xamante ni dañ ko war a def pour le Sénégal. nangook sa gis-gis ci li nga xamante ni moom moo am tey Ibrahima Ndoye nga xam ne moo remplacé. Mhm. Abdou Karim Diop. Mhm. comme ni ko euh, Alioune Top waxee bëri na sénégalais yoo xam ne ñu ngi doon xaar justice bi am changement boo xamante ni boobu ba léegi ndaxte gisoon nañ ne askan wi ak justice bi daanaka dafa ñagasoon ci seen diggante. waaw waaw waaw man de bi ma parcourir euh, réseaux sociaux yi. ni ma gisee gars yi kontaan. dafa mel ni keroog bañ génnee usmaan Sonko kaso. ni gaa yi kontaanee woon. moom waaw guddi googu man moom laa gis tey gaa yi kontaanee ko noonu. Mm-hmm. lan moo ko waral nag ñëpp xam nañ ko muy justice bu jeng. Mm-hmm. ci